dafa am mi ne sa maam damel Samba Laobé fa la daanoo. waaw mais sa dama ko maa daanoo yor tamit. Modou Gueye héritage. non père père Modou Gueye héritage. père Modou nangul rek bàyyi leen nangul rek. nangul rek ma leen doon tërëmal. nga ne. sam am Samba Laobé fa la daanoo. waaw dama Samba Laobé fa la daanoo. waaw ci gàllankoor minette minette bu buy lakk yow génn ñii bàyyi leen. yow yaay sama sëñ yow. parce que borom Touba. père Gaston dafa ko aanu mu toog parce que dafa am loo xamante ne am na fii ci diir bu yàgg père Gaston am nu mu taxawee ci làmb waaw ci ñëwaatam ñëwaatam parce que tamit euh, euh, gis nañ fi mhm. promoteur engagé ay lutteur mhm. mënulu leen mhm. dara te loolu day gàllankoor ay mbër mbër mënoo fexe ba fixel ko dat loolu dafa metti ba pare nañu ñaaxaat ñi nga xamante ne moom mooy seen ay fan club parce que tamit euh, ñii li ñuy def nii ci la ñuy dimbali seen ay njaboot ci la ñuy liggéey ci la ñuy suturloo képp koo xamante ne yaa ngi leen di engagé demal ñoom ci ay base mhm. yu clair mhm. ku leen mënta tëgg bu leen tënk mhm. parce que lamb ji tijjeeku na. am na ñoo xam ne ñi ngi tënk ay mbër. te leer leen mbër yooyu duñu joué. duñu bëri ma wax la benn bu gàtt loo xam ne dama koo fekkee. ba su daan dem. di doxi combat. malet bi. ci suufu oto bi lay nekk ci ginnaaw. booba Jacques Guèye mi ngi dund. du ngeen yàgg ci waxaale. ñu dem a dem ba am ci ñooñ ñoom ñoo tax ñu ne na xaalis bi di fanaan si seen CNG. mais moom ab maletam la daan yor daal di yóbbu fa ngay waxee la naan til daal di koy génne ubbi daal di lay tegal su ngeen waxaalee tamit daan na dem ba daawul dëgër. ndax lu tax daawul dëgër su ngeen waxaale ba waxaalee mu fay la lu jaadu lool ba addina waat ne jaadu na. soo waxee mu ne teel mallette bi su bëggee génnee mallette bi waa kër gi daw jàpp. <laughs> du génn gis naa ko waaw du génn. <laughs> stratégie tey tey tey tey <laughs> euh, euh, euh, ma wax mbër mi yëg nañ ni que Gaston production dafa nekk ci. monté combat wu Balla ak ki nga xamante ne moom mooy. ama seen ama seen nit ñi dañuy wax rek man sama sama xel a ngi ci monté combat yëpp mais Balla dafa am combat waaw mois de juin war a bëri combat man yàgg naa joxoon loo mbëri ñetti avance ñetti avance te gis naa man Aziz hmm. te Aziz ku ne xam ne Aziz mooy Balla hmm. bind na ci statut am hmm. WhatsApp kañ la ko Balla pour kii mois d'août parce que bëgg na deux mois bi ci toppaat Aziz Balla bëri te xam nga Aziz bëgg la guerre bi bëgg naa bëri mois d'août keneen bëgg naa bëri ñaar xale yi mais père nag la guerre du bëri ak Balla Lac de Guiers bu bëri ak Balla mais Balla laa la wax ñaari combat yu tax Balla moom Balla moom su neexee yàlla dina bëri mois bi ak xaw ma ku muy ah, ah. kon dina bëri juin dana bëri mois bëriwaat août dana bëri juin dana bëri août bombardier ci boppam su bëree ba pare CNG su accordé la nu mint euh, suñu confirmé. ah Bombardier te ñu ko joxaat Lac de Guiers nag. Bombardier na bëri. ah Bombardier Lac de Guiers ay xarit ah bu leen nag. Lac de Guiers ñaar ñaar ñi ma dese daal muy Bombardier. Lac de Guiers Reug Reug Bombardier Balla Gaye ñoom ñaar ñëpp mën na ma wax combat. Lac de Guiers Reug Reug. su bëggee ma jël avance bi yóbbaale ko caaro yi Lac de Guiers Reug Reug. yow Reug Reug ngay wutal combat. déedéet. Mm-hmm. lamb laay teg ci yoon. Ah, mais gi non mais mi na <laughs> am ay. Ah, Lac de ah ah lan la gën a la. père ah waaw loolu mooy tontu sax. non père nag père père rek père rek moom day burle étape ah ah kii day burle étape waxuma dumbar de. ah lan la day burle étape laa wax. burle étape la ma tax ah. booy ñaar ba ay morom xanaa sax au moins. xamul li xew ci làmb. et eh, burle étape laa la wax de. dama eh, bu ñëwee fii moom day burle étape am na ñu war a xaar. rek ci commentaire am na am na am na ñaar ñu commenté jox Gris Bordeaux Lac de Guiers de Eumeu Sène Reug am na am na am na am na ku ku joxe la. am ku ne mi ngi échelonné kenn weddi mi ngi ci yoonam. mi ngi ci yoonam waaye nag vraiment mais yegg seen dëgg. voilà mu doon damaa ju dëgg dëgg lii. am na seen dëgg kii am na seen daan dëgg kii ba daan la dëgg. waaw eh xoolal li ngay commentaire yow. <laughs> Eh, xanaa xamoo yoonu la. dama ne waxal internet boobu dama ne waxal internet boobu. am na seen dëgg rek am na seen daan la dëgg. non le commentaire bi laay lii. nga jéggi la dëgg di jox am na seen dëgg. mais père yow rek nga la da ngay xam yoonu làmb de. xamal fi ngeen non xaw ma yoonu làmb mais commentaire laay noo daan dëgg-dëgg mënu barke borom Touba mënuñu koo daan dama lay wax. na nu jël rek la ko jël li ma rek li mu analysé moo du yoon. Papis Baye Moussa daf la daan moom mu ne. ba kii léegi. ma ma waaw li mu wax moom lay tontu. waaw waaw. waaw demal. moom ma ñëw ci ko dañ. non revenons waaw. loolu la ñu wax waaw Lac de Guiers Gris Bordeaux. Lac de Guiers Gris Bordeaux. waaw léegi li ma ko wax moom nag lan moo tax mu bëgg koo tegg lu tax mu bëgg a tegg Reug Reug. Lac de Guiers te ama seen daan. mais mais mais kenn waxul Reug Reug du champion. déedéet déedéet Burkina yegsi na de yegsi na de mais lu muy góorgóorlu. waaw mais nag rek am seen ko. non rek rek amul lu muy góorgóorlu. Ah, rek non yegsi na de. waaw mais kon nag. rek rek moom ah. jël leen ko mais père léegi père père toog toog ne laal débat bu neex ama seen ñëwal nga ne rek yegsi na yegsi na way ah. lam dafa am relève baax na ah, waaw bu gaay ci relève bi la bokk may ma tuuti rek yow pare nga pour pare nga pour may ko ñëw yow rek rek yegsi waaw pare nga pour bëre ak moom non rek du ñu bëre maak moom ma mu bëre rek <laughs> lu waral loolu père wax ci non dara waxal ah rek <laughs> lu bëre di nga wax di nga wax déedéet amul nii di nga wax. yow da ngaa taxaw di nga wax non di nga wax. déedéet di nga wax. man maa leen mën a déedéet. war a taxaw déedéet di nga wax. non la question séeréer la jox. réponse bi di nga wax waxal rek waxal rek. waxal rek. Diané Diané pardon waa déglu ma rek. Diané Diané Eumeu Sène nee na déedéet. tontu la du bëreeg rek rek. ah tax Eumeu Sène wax loolu yow. loo ko noo koy déggoo merci na ko waxal boppam waxal. sa caméra bi waxal. voilà rëg bi ñu bëree. parce que rëg lu tax maag moom suma ngor may ma yaa ma yàgg supporté ma am mu may génnal ay sarax. ndeysaan. oh. yaa ngi lu nekk ci man. mais nag ëmm. yàgg a sonn yooyu nag war ngeen koo moytu. dëgg non dama naan dama naan yooyu dama naan yéen ñëpp ay frères ngeen. yéen ñëpp a bokk waaye yéen a bokk kii man père il faut nga déglu tam aussi expliqué la. Ah. adversaire nekkul rek kese moo fi nekk wala keneen nekk bañu ma bëri ñeneen ñi. naa bëri mais am na loo xam tam aussi du mu ko mun dara mënu ma bëri. rek su ma nag damay ñaanal yàlla tey balaa ngaa génn fi di ñu champion yi mag yi nekk mu yegg fa dañ koy ñaan xalaat nag mu ngi xalaat mu ngi xalaat waaw yow la ah. bañu ma bëri xale ya bañu ma bëri ñoom ah. man su ma ci tollee rek dama damay bëri eh, mais xoolal bisu. per la la dëgg man man man man bëri man parce que bëri naa xale yi. Eh, ñu dégloo ñu mhm. man bëri naa fee Papa Sow man bañu ma bëree Boy. mais xoolal Reug Reug kenn waxul du champion. kenn ñemewu ko kenn bañu ko. waaw yaa ngi dégg mais na na poussaat ba ci kanam na liggéeyaat tuuti. na pousse lu muy liggéey tuuti mais comme Ama Sène nee na bëgg na ko kay nañ ko jox Ama Sène. non Ama Sène nee na bëgg naa ko de. ah eh gis ngeen. non non néewul bëgg naa ko doon ko wax mu ne lii moom lii. ah waxuma la dégg nga moom moo ko. mais honnêtement da nga def noonu déglu ko. ak ak ak ak kii la de guerre. non combat la. <laughs> mu ne xam naa xam naa ni. mais lan lan day gën rëg rëg. <laughs> combat la non non dañuy xam naa ni ngeen ko cons. Eh, eh. ah yow kon mënoo cons. dinañ ko conseil mënoo eh. ko dinañ ko cons. conseil conseil waaw mais combat bi dinañ dinañ. dinañ dinañ xaw ma bëgg yow nga tontu monsieur li mu man fu argument rek laay déglu fu mu mu ne li am ma seen ne du bëreeg. rëg rëg. waaw moom loolu fu mu ko teg moom moom moom bëri ak rëg rëg. mais Eumeu Sène nee na yaayu rëg rëg ak ay. dëgg la mais daa bëgg mu tontu man waxuma. non man ah, de non maa ngi yaayu rëg rëg. waaw man boobu rëg rëg man rek day yëngu suma avant avant a boobu sax boobu dina. voilà loolu bëreeg moom damay bëreeg moom loolu gën a deex na. jéen kooka la jéen keer. Ah. ah waaw su ma laa mu boole moom damay bëreeg moom. waaw mais c'est ah. waaw ndax Diène champion la. sësal Diène sësal ma xool champion bu mag Diène sësal ma xool booy Dakar su ma waxee ci kee bu leen jàppee ni damay bañ a bëre xale yi. rewaas rewaas booy taawul li lay jël si biir champion la. non non mais booy bi sama doom kii sama doom mais sama doom bii dama ko sacrifié. sama doom la kii maa amee carrière waaw woo ma pour ñu bëre léegi woo ñu pour ma bëre woo ñu loolu. waaw sama doom la nag nag tontu tontu mais champion la suñu demantee ba làmb boole ñu. waaw damay bëre ak moom. waaw su ngeen demee ba làmb boole leen. waaw foofu laa waxee. non non non non bëre nga ak papa. waaw loolu laa expliqué. non papa moom a daan moom a daanoon. champion la dama la bëgg wax ni champion la rek. waaw dama la bëgg wax ni champion la. nga bëgg a bañu ma bëri jël non lamb lamb il faut ñu may relève. ah jël papa nga bëgg a fay jël. ok kii champion la relève la. kon ni ñu ko amee ci Ama Baldé kon ni ñu ko amee kon ni ñu ko amee ci Boy Niang. Mour Anta mi. waaw war na mën a bëri la dëgg. ah Modou Mbaye. mais Modou Mbaye ñaari kii mais loolu sa dëgg la. léegi xam naa ko lamb ji loolu la ñuy donc boo jox avance bu jël la léegi. ak pare. loolu moom. loolu gis nga am dafa wax wax bu am solo. gis nga làmb li ko gën a rey. loolu noonu ci la bokk. foog ñu tëj làmb ji. lamb ji. day ubbeeku faaw ñu ci kaw bëri ak. ñu day ubbeeku merci lamb ji mais gars yi nañu may sens. grand contre bëri mais def nga ko def nga ko. mais tey tey Balla Gaye dafa wax bu am solo. tey yow laay waxee Gaston nee na nga demaat classe. pourquoi mënoo toog mënoo defaat classe. Modou Mbaye yow laa ah Modou Mbaye. ay ragal ay ragal ay ragal ay ragal ay ragal laay lay lay dafa classe ci seen biir mais classe bu Balla Gaye bokk du ci bokk waaw du ci bokk ndax duñ daje. wala mu nekk ñaari poule. c'est compliqué alors mu nekk ñaari poule. mais poule yaa ñaari poule. ndax classe la saa kees de kii ah, dugub de non non mais neex na fa la war a dem de. Ah, non fa la war a dem de. kii de. dama seet wuy saay. Ah, mooy la sama poule kay na nga ci bokk xar rek ma rey la. yow yow dootuma bëraat ak yow. <laughs> Lac de Guiers parce que Lac de Guiers. Euh, dootuma bëre yombal tamit ak li problème bi. Ah. lu bëri Lac de Guiers dafa métti mbër. Ah. parce que xam nga la moo tax da ma mënul daan. daan naa la ma <laughs> daan. naa la. non daan naa man xam nga tey boo xoolee suñu premier combat. rajo préparé ma affiche sponsor yi père remercier sponsor yi ñu. soo xoolee suñu premier combat. benn kii Sarr lañ ma wax na ma. Mhm. waroo ko wàcc da waroo sol si kii saar bi ko wàccee tuuti loolu moo tax mais su nekkoon su nekkoon boobu kon ndam laay victoire laay am moom bañ ne ko ba ba jour boobu bañ attee dafa mu taw di jëriñ làmb ji gars yi na ma la dégg rek arbitre attee mu taw man ko dafa yaakaaroon ab day woote waat ah kañ la ban combat ban combat. Eh, kii nag moom dafa mën a jàpp kaañ. le premier combat bi kii lu tax ngay accepté mu lay jàpp kaañ. comme ça jàpp kaañ de. yow jàpp kaañ lu tax nga koy defal jàpp kaañ am na lu mbooloo la. dégg nga am na lu mbooloo la. am na seen jaay yu ruubee la ne yàlla de ah ay ruubee la ak dëgg yàlla. di ko yëngu waaw waaw kii damaa mën a ruubee nag. dafa nag non dama ko wax te lak day ruubee peer. non ruubee kaa wax la benn affaire ruubee nag jóge wu fenn ci. lak ci peer la gën a mën a. waaw waaw waaw moom tournant bu mu war a bokk. rëg-rëg ci la war a bokk. yow sa tournant nag. ak. Euh, après ma ñëw ci yow a bokk. a bokk ma wax la ko. <laughs> tournant bi waaw man qualifié naa pour ma sama. waaw nga qualifié qualifié naa tournant bi ba sama tournant na kooku sama tournant gars yi xam nañ ni mu demee. déedéet yow sa tournant ba ma war a bokk. a bokkal. mi ngi lay moom la Balla Gaye Modou Lo non père xoolal non père non non non non. yow mënoo cee bokk. non parce que Balla Gaye doo bëri moom. wala boo bëri Balla Gaye nga dugg. moom Bombardier. waaw Reug Reug. non mais du bëri non Bombardier du bëri. du bëri waaw waaw kon dañ ci boole. yow looy ragal Bombardier. du bëri non moom Reug Reug. day dawaat non Bombardier dafa def Bombardier bu mu doon dafa comprendre nga xanaa moon nag Bombardier coup bu gën a métti bu ma gën a encaissé mhm, mhm. Euh, ci lamb bu gën a métti mhm. mooy si kon sama combat Bombardier bagarreur la i sax ma Bombardier Bombardier ba ma dóori ko ba ma dóori ko sax sama bët bi dafa peer loolu moo tax ma jalax la bi ma ne Bombardier Eumeu da ko daal ma ñëw di soog Eumeu Eumeu li ma pa tàngaaru coup bi moo ma bàyyi Bombardier ba ma dóori sama bopp métti na une semaine une semaine ah. def nga scanner moom dañu dajee ñaar daf na ma Eumeu Sène ma kaa mu lu tax ba ma la dóoree daanu woo su ko parce que Bombardier dama dem di ko dóor yi dajeeg droitam ba pare pied garde gauche gauche la teg kon forum ci loxo droitam la nekk. waaw waaw comprends nga xam normal boo ñëwee taxaw dañ naan tegal pied gauche. pour loxo bi nekk ouverture doo xuloo giri doo xuloo giri bëri ndax vraiment nag loolu la ko war a ngeen xuloo moom giri bëri la dëgër combat la. non giri bëri dama ne du ngeen xuloo laa giri bëri laa bëgg ngeen xuloo. daa ko mu dem mu dem mag kan. merci. bii sama. merci bi. wala bii dama toj kaani pàccal Ah. amasul bi kay riij nga ci bëgg sax riij nga ci bëgg kay waaw riij nga ci bëgg nga ci bëgg waaw ah, ah. mais tëj kaani pàccal ni moom gars yi Gris <laughs> Bordeaux non dafa plaqué yëpp eh. dafa doon plaqué waaw xool waaw mi ngi nii merci mais eh, gars yi eh. nee nañ euh, pourquoi pas Lac de Guiers Malick Niang non pourquoi pas Lac de Guiers Lac de Guiers Malick Niang ak Tapha Tine ëmma ëmma Tapha Tine merci Lac de Guiers Malick Malick Niang Eumeu Tapha Tine. yaa ngi soog a wax nag combat yaa ngi soog a wax nag. ah, ah, ah taful ma wax non yow yaa ngi commencé xam la parce que boo jëlee Lac de Guiers. Ah. mais jël teg ci Tapha waaw. ba tey boobu yàqoon ci samay loxo. waaw waaw ko delloo ci. waaw Gris Bordeaux tey boobu yaa a neex. waaw waaw. Ah. mais ah, man man seen papa laa rek. man kii eh. yor dara. ah kay Gris Bordeaux Balla lu mu yor. Ah, loolu sax amul problème. waaw loolu samay doom lañu. Modou Mbaye aw ma problème ak mbër man Modou Mbaye. Gris Bordeaux Balla Gaye dafa yàqu waaye yàqoowul aussi ci Gris d'une mm. waa ci ay noppam la yàqu. Mm. maanaam dégg di dégg ay ok déglu fa ma la waxee. waaw mais bëgg ah, de. Mhm. Gaston production mi ngi sa kaw. ba léegi yaa ngi bëgg. comme Balla ko ma daan ba léegi waaw da nga ko waaw. Gris euh, yi bëgg ba tey ba tey. Père Gaston. loolu la yi wax bu fekkee nga bëgg parce que fii. Gris Bordeaux la yéen waa Bantamba TV kat dégg naa yéen a ngi wër combat ci suuf. amu leen ko waa mais ma dégg naa a ngi wër combat. négal négal xaw ma ku la ko wax waaye mi ngi lay négal gas ëmma. ñun gasoo production lañu àndal ci tey daal di indi. non non non non kii bi ba suñu ñëwoon avance Balla Gaye. non non duñ def duñ defoon. ba tey làmb ni nii ak làmb toll fii mu toll nii indi la avance Balla Gaye di nga jël. non non non ni ngeen ma jàppalee nii su ngeen tëggee ma jàppalee combat la. Balla Gaye Gris Bordeaux. combat la. ah yow tamit da nga dellu. perte perte sësal sësal. moo ko wax de moom moo ne. Balla Gaye Gris Bordeaux combat la. ah. mais ngoone. yaa bu ñu bu ñu génnee bu ñu génnee bu ñu génnee ci lool noon tamit loolu loolu noonu yëpp. Mhm. Père Mbaye Ngoné. Hmm. dafa laal mbër moo xamante il représente notre pays. ndeysaan hmm. rek te bërki démb démb. xaw ma démb la am na waaw waaw waaw dégg rek ah, la ci waa Thiaré Sénégal ñëpp Sénégal drapeau Sénégal nag mooy lu am solo mais père nag mais père. waaw rëg-rëg. waaw mu ngi ci guy gi. mais mu ngi guy gi dama ne. Balla Gaye actuellement mu nga ca Bombardier te ñëpp doonoo bëgg digganteem. mais kii nu mu wax nangul leen kooku tamit aussi. wala digganteem Agri Bordeaux. <laughs> mais eh, rëg-rëg. la père moom gën li muy wax nii rek nga fekk kii lambaloog la xam na. mais rëg-rëg la yoon bu ñu ko tëggee. yii combat moo taxaw rek kii da nga ko doon analyser su nangu woon Balla Gaye de koo ragal ah da koo ragal. ah daan na ko deux fois ah. bu ragal da koo daan ñaari yoon ragal ko. dama ñu gànnaar waaye xam nañu dafa xew. wax loolu tamit père lan moo tax père stratégie lay def. père père mu dugg foofu père mu xool. waaye falaay dugg yéen dugg foofu père. man confront yéen ñaaree confrontation. non yow moom yow moom bëggee ñu confrontation. yow moom boo ko yow plateau. amul amul amul amul amical da ngaa ragal. Eh. barki démb seetaan nañ la TFM. Mm, waaw. <laughs> <laughs> fan leen ko Modou Mbaye. ban raison la mën a am ba du jël Balla Gaye non loolu xëy na raison boppam mais man dama bëgg a ñëw. Mm-hmm. Lac de Guiers mi nga bëgg a jox rek rek. yow tey loolu bu taxawoon yow loo ci wax. lu ma ci wax. waaw comme ba du ko dàq. kii xam na ma bu baax maam ma xam <laughs> yomb xam nga ne Gaston fan naan toog ak moom Balla Gaye kii ñëwee suba kii ñëw ngoon. Oh, lak dama jaaxle bu baax lak dama jaaxle. su karoo dee lak bàyyi jàmbur mu analysé ah. mooy lak bu ko perturbé bàyyi ko mu analysé. Eh, bàyyi ko mu wax. Ah. man perturbé man <laughs> waxal. ñemewul ci man dara de. mënul <laughs> ci dara. ah caaroy géej laa dëkk. dëgg la caaroy géej laa dëkk. caaroy géej laa dëkk xale bu dee parce que borom Tuubaa caaroy géej laa dëkk. waaw tey ay meeru jaara. léegi bu ah, taxawoon léegi bu taxawoon bu combattre. waaw noo koy conseillé pour mu daan ko yow. nu may conseillé kat lan daan kan waaw pour mu daan Lac de Guiers. comme à huis clos la. père mu làmb. dina bëre de. su keroogee di nga jàppante contact dina am. Ah. waaw ni muy non boobu bugul bëre de bugul contact de. ah mais su keroogee contact. non du contact. ragaloon naa nag mu yóbbu la à l'usure ba mu des quelques cinq minutes sept minutes mu dóor la nga daanu loolu laa ragaloon. Hmm. waaw xëcc xëcc la ba combat bi kii mu dóor la nga daanu. mais hmm. nee naa leen su dee dina xeex ndax. gisatuma mu xeex mais su bëree woon moom daanu waaw xaw ma doon su yow ne coppet. xaw ma doon dóor mu daanu du mu naan. ah kay su la yóbboon allusir na la dóor nga daan. non non dama la wax yóbbu ma allusir du taxaw di léewtoo. Ah, yóbbu ma allusir day xeex ak yow. Eh. waaw su la yóbboon allusir day eh, xeex ak yow. maa ngi ñëw maa ngi ñëw ma toog. ma toog <laughs> ma ngi koy taxaw. lakki per la su la yóbboon allusir. lakki sa papa la de. lakki suñu papa la rek leen. waaw doo ragal de. dama ne su la yóbboon allusir boole ko xeex bu tar xañ la jàmm. waaw. Oh, nga daal mais dama ne su loon xeex su dee xeex ba bon ba mu daan xeex démb ak bët ki démb. ngi woon ci moom mais lag daa gëj a xeex xeexatul. waaw lu tax nga ne lu tax lu tax nga ne fa tax mooy dóor mu daan. ndaxte ëmma lag su xeexee normal. waroo ko kon dafa la ko. kon xeexuma moom keroog nag maa la yor déedéet xeexoon li ma ko def man keroog loolu xeexu non non non kuuba sax doon ma koo won mais man kuu boobu mhm. nga xam ne moom moo indi non fii dafa gaaw a dagg bëgg fii jëla yax la rek ak fii dafa gaaw a dagg ma yàgg naa toj ci làmb waaw ndax fii la ci R4 yow yàgg nga toj ci làmb loolu dara lal mu toj R4 moom ci yi gën a nooy ci yaram mais kii soo ko cadré woon dëgg dëgg naa ko lak yow laay wax ma la doolee lak dëgg mu toj de lak dëgg lak dëgg man sama combat kii soo ko cadré woon mais non xoolal Modou Mbaye. kii soo ko sa bopp soo ko doon yëpp daal garaawul on sait. non non on sait. non dama bëgg ngeen xam benn dama bëgg non dama bëgg ngeen xam benn affaire. sama combat ci jël. naaj yu ma ci naaj. waaw naaj ma ko bi jëluma kuy ci combat. moo tax yéen doo leen tegaat. combat non dafa naa non dafa ko écrage bi. merci dama jël coup ba demee côté waaw yëg dóor na ma ko tamit ci saaku yi. Hmm. ma tërëf ci kaw saaku yi. waaw jël naa ba ngeen fa jógee waaw dégg ma jël naa ci ay dégg jël naa ci ay coup fatal. waaw. comprendre ma expliqué mortel kay. waaw jël sama combat gère ko. Hmm. tey la de bu xëroon ci dóor ma ma daan bu xër ci dëgg dëgg dëgg dëgg. su dinaa ko daan ba jéggi ko. moom man ragal naa de. Hmm. non si dafa naa expliqué non dafa naa dafa naa dafa naa dafa naa dafa naa vraiment du dee non damay déglu mooy dañuy waxtaan non amul ragal naa wala dara non dañuy waxtaan dañuy waxtaan non dañuy ah. man su fekkoon tey hmm. la dëggee dafa yëkkati <coughs> mais gauche am nga tey gauche droite jaayu ci làmb hmm. bu dee ci boxe la. Mhm. mu nga dóor gauche deflete di dóor droite. Mhm. wala nga def gauche droite parce que amul somb. ray ko ci làmb ja est-ce que comprendre may expliqué. Mhm. mais tey gauche boobu muy dóor moo tax ma ni ma bëgg a liggéey. gauche moo la ma liggéey. mais non non da déggee man déggul ma yàgg naa toj ci làmb jàmbaar léegi daal lu yéen lu leen neex man ngeen ko wax de ndax non non père non père dafa naa man non waaw ok léegi lak man yàgg naa yàgg naa toj ci làmb loolu garaaw mais jën kere temps booy sax dañu laa ruma ñuy xeex temps jeex na comme wax nañu ci il faut ñu ñëw ci date yi nga xamante ne fa lañ jëm père muy combat bi nga xamante ne ñu nokk ba pare kay mais ah. lamb lamb kenn du laaj ci ku dóor ku daan lañuy laaj. Ah. man yàgg naa gaañ ci lamb lii dara dóor lan man dama la dóor ba nga jéggi sa mais bëriwoo ama bëriwoo lamb ji hmm. da ngay nangu loolu bëriwoo dama laa duma suñu premier combat ba ar duma la ci combat bi ñaar bul duma naa la fi duma la ma duma ko fii mais yow yow ban façon nit ne léegi lan nga bëgg ma def la nga wax ah, nga bëgg ma def defal nii mbaam sedd ah, yëgat sa bos non ma am fan ah mais kaay ma rek man fii laa gaañu sama combat bi non bi njëkk bi dañ la dama la woon dem la gis télé lay wane ñu ma ne lay lekk woy ma man ko wax ne ko mu la sax ngaan xoolal fii xoolal fii xam nga naa ko nee naa ko xoolal fii jombul fii ngay xool ma ñëw non li li moom def li moom de laa doon contactal mu gaañ dama ne ko combat dama laa dégg jël ji métti yaa ngi la dégg lii bu ko def ndam fii ngelaw gi yàgg naa gaañu dara ma yàgg naa gaañu ci arène lii bu ndam ay ay maa lii lii nag nangam bi loolu garaaw la ci dama la ci dama la ci humilier. ay ceeb loolu man mënoo ma humilier man jamais ma euh, humilier. Euh, euh, loo xamante ne da nga ko téye def ko loo ne ci la. musoo ko defoon moom. bëreeg yow moom da lay la lan fan nga jëm. non bëreeg yow mooy ñàkk a fayda yow. la wax yow. waaye léegi waaye léegi loolu jeex na. loolu la bàyyi leen nga wax mooy ay bëreeg a fayda. waaw mais bu moom moo ko bëgg a a mais la dëgg père yow damay ñàkkal fayda kon non non non non ñàkk fayda si bëri boobu bëri moom dafa ma ñàkkal fayda parce que waxe na ma la dëgër bëri yow dafa may ñàkkal fayda kon donc man kii respecté wu ma si dama ko respecté moom la dëgër xam nga mbër mooy mbër la dëgër yéen ay defet am yu bëri yëpp moom taxaw waaye léegi waa tàggatoo bàyyi ba nekk roi des arènes bàyyi ba nekk roi des arènes roi des arènes defal yow un mois waaw mais nekkoo ñëpp maa ngi sant waa géej waay tàggatoo waay en beauté maa ngi sant waa géej waay bu leen ko yàq yëpp en beauté wóor gi ni boroo ah Gris mooy wax nii. Gris Bordeaux oh, coupé na xaaral mu wootaat Gris woote waatal Gris woote waatal eh est na woote ci Karajo mu dugg. Eh, Gris wootal woowal Karajo. Karajo wool Gris mu dugg. Karajo wool Gris Bordeaux la tàggatawal. waaw Gris Bordeaux woote na Gris ay mais bi li ci kanam. perspective yi lan la. waaw mhm. senal Karajo numéro Gris Bordeaux ñu woo ko. mooy woote. dama jox Karajo numéro bi. ayca joxal Karajo numéro boobu mu dugg. lan am bote. grille de saboteur bëggee bote. <laughs> neexal nga émission bi bëgg a bëri ah, de naa la sa poche. waaw bëgg a bëri am bëri la de a bëri de fi mu ne. ndax lan nga simil ma sàppo. non dama la bëgg sa émission dafay neex quoi. mais lan lan la macha allah. bilay ak maa la raw bilay yow bañ ko rek. maa la naqari moo ko naqari. ngir ñëw yow non non non. d'accord non non bu ñu defee sama waaw d'accord waaw merci waaw merci. waaw mais bon d'accord fan nga jëm amul problème. fan nga jëm ngir yàlla avenir bi fan nga teg sa bopp instant am nga victoire fan nga jëm. man sa mbër ci li ko teg mooy leen rek. mooy mooy roi des arènes te loolu laay ñaan yàlla suñu borom. incha allah waaw te yàlla na ma ko yàlla defal ah. amiin waaw di sant waa ñaan yàlla. yaa ngi teg ci def kilifa la ci biir gouvernement bi. barki yàlla Mame Boye Diao. non dama ne kilifa ñu koy Mame Boye Diao kay mi ngi nii ñu bind Mame Boye Diao def cadre roi des arènes 2021. jënd 1000 billets may ko supporter yi lala ku ci nekk boo amee boo boo jàppale sa mbër. ñu wax ko Mame Boye Diao daf ci jàpp. lii la def jàppale moom. maanaam maam lépp la ci man moom day jàppale mbër yëpp mbër yëpp la bëgg mm. ku ñëw ci moom wax li nga xam moom nga bëgg mu yëkkati alalam def ci mm. yaa ngi dégg mm. moom ñëpp la fi nekk nekkul fi la dëgg de kese la yaa ngi dégg la sama sama papa la sama grand la sama lépp la du nuy en passage sama yaay maman seex yi maa ngi leen nuyu jumelles du nuy badu xam nga du nuy famille bi yëpp képp koo xam ne yaa ngi biróom nu ñuy nuyu ñëpp di sant waa Géejawaay bu baax. surtout di nuyu ki nga xamante ne suñu père la muy père Diaw. Mhm. waaw père maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax. ndeysaan ndax euh, moom Géejawaay moo ko yor moom lu ko lu ñu wax rek mu ne. man Géejawaay moo ma ñor. mbëru Géejawaay du mbëru Géejawaay. Mhm. mais Géejawaay moo ma ñor. kon donc père Diaw ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla yokk ko ci barke Seydina Mohamed. amiin alhamdulilah nuyu ki nga xamante ne sama papa Masata. Mhm. Euh, Aziz Ndiaye. Aziz Ndiaye. ah ñoom xalil xalil ndeysaan sama papa Baye Alioune famille boobu yëpp hmm. ah surtout Massata ah, Massata dafa sonn ci combat bi trop daf cee sonn trop kooku amuñu fayam mais yàlla lañ koy baal yàlla na ko yàlla fay nit ku baax la waa géejuwaay bu baax a a baax a baax waa géejuwaay bi bon aw ma seen fay daal géejuwaay sa bët ci kan nga ko teg instant yi fu mu ne dégguma la roi bi ngi woote de am na fu nekk. bu ma waxoo ko bi am na fu nekk te daam yoon. Hmm? roi bi bu ko def beneen balaa nga yegg foofu. dafa am fu mu ne. ah ñaan yàlla doon roi des arènes. Hmm. waaw moom la ñuy wax ma la xam roi bi. daa xam naa fi mu nekk waaw mais dama ma la. ñaan naa yàlla am roi des arènes. Ah. waaw mais xam naa baax mu nekk. Ah. waaw kooku. voilà ay xarit ngeen de ñaar. kan ki yor roi bi. waaw <laughs> sama waay la xam dafa ne ci combat bëgguma ko déconcentré. Hmm. yaa Modou Lo la tamit du ñaan yàlla combat boobu yàlla def ci jàmm yaa ngi dégg waaw loolu beneen bis toppaat maa ngi maa ngi sant ñëpp waa Géejuwaay di sant waa Casamance Sédhiou Kolda Guinée yaa ngi dégg euh, am daani shérifol shérifo ba daawoo daa duniyaa ko na mbaal tentu la mbaal jey la mm. daal tentu fanfan Ziguinchor Casamance Kolda Guinée ak Waalo moom Euh, pëlu waalo yi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm surtout xanaa pëlu waalo yi ñoo nelawal ah pël yi ndaw yi waaw pëlu waalo yi xaw nañ ko laal nag cof nañ ko tuuti quoi sax waaye dañ ko cof cofe yaa ngi dégg maa ngi sant mbëru géejawaay yëpp bàyyiwuma kenn mhm. képp ku ci am mbëru waay yàlla nañ la daan <laughs> di sant Lat Diop ay da saw Diawara nee na taal yaa ngi 88 628 14 13 allo dafa mel ni Gris a ne ci ligne bi allo Gris ñu ngi lay nuyu ana Bijou Ngoné. waaw maa ngi lay nuyu di la. waaw Bijou Ngoné maa ngi lay ziar. di la dalal bu baax ci émission confrontation ayca yow la ñuy déglu. waa maa ngi ziar nag di di di di di rafetlu émission bi trop ah. jërëjëf. di nuyu suñu père Gaston di bés euh, euh, bés moom borom lay borom lay lay tolloon. Mhm, bi lay ndeysaan. waaw marqué na marqué na empreinte wane na ni ba léegi moom lenge yi moo ko yor saa yu ñëwee affaire yi neex. billaay ndeysaan. jërëjëf waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm nag bëri na jikko lool waaye ku baax la. dëgg la day ceeb ci waaw. moom moom wax dëgg yow mu gën a yàpp mbër. <laughs> waaw di nuyu nag euh, ñaari. yaa suñu père euh, Lac de Guiers ak Eumeu Sène. Mm. di nuyu suñu ñaari rakk yooyu. jën mm. kayre. ak Modou Anta. di féliciter mm. Modou Anta ah. waaw. di ko encourager di féliciter suñu rakk. Euh, jën keere ñu bokk ñu ah. Medina waaw mu ah. sargal ñu sagal ñu bari ki démb ah. waaw ñu nuyu suñu papa jooju benn mu ngóone sax xorom ba bari bay rek waaw di nuyu suñu rakk jooju Modou Mbaye ci kii di félicité Eumeu di encouragé Eumeu Sène di félicité Lac de <laughs> parce que euh, combat bi ku xam ni bari ki démb xam ni ay mbër la joo xam ne tey kenn waru mën a juger ci combat bi ñu def bërki démb parce que c'est la troisième fois ñu mhm. kon ñaari ñaari combat yi nga xam dañ ko bëri dañoo dañoo bëggal Sénégal yëpp wane fulla wane fayda wane personnalité mhm. tey nag bii nag ay la boo xam ne calcul bi dafa bëri woon trop en même temps combat bi bett leen ci yoo xam ne il ñu leen juger ci que combat bi du la troisième fois bëri kon boog dañuy félicité euh, Lac de Guiers di encouragé Eumeu Sène di wax ni rek làmb moo gagné ah parce que c'est c'est deux frères yoo xam ne tey mën nañ toog ci plateau bi mhm. waxante xool jóg waaye nag ci fair play rek lay mujj ah parce que on est on des adversaires mhm. waaw pour que pour que ñu xam ni rek ni c'est des c'est deux frères yoo xam ne tey ku leen gis xam ni waxante ni xam ni seen xol yi dara néew ci waaw mhm. ah, mais sport moo demee noonu encore une fois c'est la xam nga bëri moo gañe xam nga moo tax daal dañ leen di encouragé di leen félicité leen wax ni daal ah Gris yow fan nga jëm fa nga jëm laa wax fa nga jëm man hmm. ah man de ni ko laaj ko Gaston ah man je suis seul je suis seul contre tous. Ah. père yaa ngi ah, bu kenn boole man. non père sama père la. non mais acca laga ngi nii de. acca lag dëgg rek nii de giri bu kenn xam foo jëm. moom moo la gën a xam man dem moo a gën a dem ngénte. Ah, ah man moom moom xam na ne man maay man maay mbëri ruŋkuŋkuŋ. <laughs> ah poncheur baa ngi nii de. Ah, day pàccal limon temps yi de. day daa day lii bëri sax pàccal limon. naam lii kucaa. ma amoo de si ko du man aw ma man xam maa la ko adversaire waaw waaw. moo tax man xam nga ni man gaston bu bëggee sama combat xam na fi jaar. moom ñëpp lay bëril. ah man moom xaw ma benn Eumeu Sène laa bàyyi ci làmb. waaw waaw Eumeu Sène waaw bàyyiwuma kenn ci làmb. waaw dëkkandoo la. te bu bu yuuxoo. dëkkandoo la bu yuuxoo ma dëkk ko. waaw ndeysaan bi lay. te moom frère de sang ah, xam nga. li bokk ñaari famille yi benn léegi. moo tax ah, am na loo xam ne. ndeysaan am na loo xam ne kenn mënatu ko gor bu ne mm. gor nga ah. wallaay mm. wallaay. waaw ba ma ba ma ba ma ndog ba ma ndog ndog dalee moom moo jiitu ci man. wallaay wallaay joon na suma ma am na loo xam ne am na loo xam ne xajul xajul bi quoi. wallaay joon na. mais Gaston moom bu bëggee sama combat xam na fi ñu jaar ah. yow kay xaar ko rek toogal rek. waaw maa ngi félicité su ma génnee léegi naa la woo toogal rek ñu ngi lay woo léegi war na lu gisee léegi maag yow <laughs> waaw di la encouragé di la ñaanal jàmm amiin yàl na yàlla def jàmm ah ñu auditeurs yi jërëjëf ah. giri na sax ba pare ayca ama <laughs> jërëjëf giri jërëjëf ja mais euh, il faut ñu tontu ko aussi waaw xam nga Gris léegi dafa stage. Mhm. mooy président des lutteurs. des en activité en activité. Mhm. en activité léegi soo gisee. mooy président ñoom la nga waxee nam sax léegi léegi léegi dafa dafa yiw ah xam nga Gris man la gën a yàpp ci kii bi. yiw gi yëpp. su ma dajeeg moom. day mel ni dégg nga maam ku dajeeg doomu bàjjanam. Mm. <laughs> Euh, ba nga xam ni. léegi daf may tooñ sax mm. tooñ na ma fi ci koor gi yël sama alal xaalis dem mais moom sama <laughs> doomam wax na ko léegi xam naa sama doomam. <laughs> moo tax jarul toog. nit ku baax la. xol bu baax laa amee day ba bër mbër la day bëri. mais léegi da ngeen doon gërëm Lac dafa gërëm euh, Mame Boye Diao. Mame Boye Diao mm. effectivement Mame Boye Diao sportif la. Mm-hmm. day jàppale mbëri yëpp. day jàppale même promoteur yi day jënd billet man ñetti nit a jënd bi ci man ñëw. xëy na jënd nañ am na ñeneen ñu jënd de. Mm-hmm. am na ñeneen ñu yoon yónnee. mais ñett nit ñoo ma woo commandé ba ay billets pour seen mbër. Mm-hmm. te pourtant woo naa autorité Thiès yëpp. woo naa leen sama téléphone leen dimbali leen Modou Anta. dañ ko xëy na nag dimbali nañ ko lu ma yëgul mais wax naa leen ni Modou Anta ni leen Thiès ni ngeen ni Thiès mer ci yéen Modou Anta leen gën a xam yéen. mooy porte drapeau Thiès. wax wax ko ma kilifa yëpp rek laa wax. Mhm. dëgg la yaa mhm. woo. kilifa yi Bamba Fall. Euh, Bamba Fall Bamba Fall dafa déplacé wu ñëw ba sama kër. Cheikh jënd si biir. ñëwaat ba stade teel a ñëw eh, déglu rek. Cheikh Ba. Messi woo Messi. Mm-hmm. woo ma jënd billet yu bari ñi ma maa tudd sax nombre de billet bi muy. ndeysaan. Mm-hmm. billaay. commandé ma mm-hmm. donc ñett ñooñu. ñett ñooñu. mam maam Boy Diaw. waaw Cheikh Ba. Euh, Bamba Fall. ñoo déplacé wu woo ma commandé ay billet yu baree bari jox kërim bër macha allah ñi ci des bu dégguma kenn. xëy na jëndal nañu ëmma seen xëy na jëndal nañu Modou Anta. non mais man yëguma man promoteur bi. mais nag jot na euh, euh, autorité yi comme ni ma koy waxee rek. parce que tey ñoom ñëpp ku ciy samp bëgg dara ñii ngay dem tafu. ndax ñoom la nit ñi bëgg. ñii la nit ñi bëgg loolu leen président Macky Sall ñoom gënuñu fi. autorité yi gënuñu fi. dàq nu fee jàng. bon ëpp nu fi nit ñi solo. autorité tey kenn falu leen. le président Macky Sall fal. Mm. mu jël ci leen ko fal ay def ko ay partenaires. jox ci ay nit. Mmh. dénk leen. Mmh. pouvoir mmh. nit ñoo ñu war a jege population yi. mooy yoon mais suñu jegewul population yi. su leen population yi téléphone sax duñu leen jot. <coughs> ku ci falul dem. waaw ah. te xamuñu ni population yi yee fal Macky Sall ba Macky Sall man leen am moo compal ñoom kon ñu war a mën a compal population yi. mais su su seen militants yi seen doom yi amee combat wala am match de football wala am leneen ñu soxla leen kenn du leen gis. kenn du leen gis seen téléphone mais ñooy ñooy ñan. ñii jaruñu sax jox jox dara jaruñoo jiital. jaruñoo xeeb de ñii. xeeb. ay millions la ñuy gisee rek mais Bijou Ngoné ay ay ay président Macky Sall ay porteur de voix lañ. ay star lañ fa ñu dëkk. Ah. nit ñi dañ leen a bëgg. ñii niñ leen nit ñi bëggee bëggee ko autorité yi de. mais li Lac de Guiers indi keroog. li ma euh, Bijou mais politicien bu ci dem ci seen dëkk. discours boo def da nga leen ciy cité. mais dañ leen di mottali ko dañ leen di mottali ñàkk moo tax gars yi dañu war a wàcc bisu gunge ki nga xamante ne mooy Modou bisu waaw gis nga mbër yi ngay gis mhm. ñëpp ay soutien de famille la ah ñun ñi ci gën a tuuti nii hmm? mhm. bu bunu gaa yi gi sali dem ñun liy fëgg suñuy buntu kër rek billahi barke <laughs> yonent yàlla Muhammad mais man xam naa ay noobal ngeen dañuy yeew lu ndékkee sax du lu ko yor bala ngaa ndékki sax laa dékku naan salaamaaleykum ani diw te loolu may dal day dal gaa yi yëpp ñëpp mhm. ñëpp barki yonent yàlla moom. Ah. bëri ñoo gën a sonn. eh fàtte naa kenn. xafoor uh-huh. Touré it moom it commandé na may billet ndax bëgguma ëllëg sax mu ne li tax. Mm. Mm-hmm. commandé na may billet. Mm-hmm. ah parce que boobu it Géejawaay la dëkk. xafoor Touré mm-hmm. waaw commandé na may billet. waaw ayca euh, Eumeu ñu bàyyi la nga nga nga tàggatoo na ah jeexal na. non yow. waaw jeexal ko on ici on termine en beauté. Mm. te lamb lamb région yi région yi dañ faa yóbbu lamb. décentralisé waaw décentralisé ah. mais itam autorité nekk région yo mm-hmm. nan jàppale population région yo mm-hmm. par exemple tey man mm-hmm. ñaata ay jour a ngi nii ku ci mel ni Ablaye Sow bu Kaffrine mm. mi ngi ma woon la jël ma huit huit pour ma yóbbu Kaffrine combat gëbëg fa yóbbu ña ñaar mag la fa yóbbu combat bu mag dafa tàng dafa waxal combat bu mag laa fa yóbbu. dinaa ko yóbbu Kaolack dinaa ko yóbbu ko yóbbu feneen combat dama yóbbu. incha allah mais autorité yi suñu fa ñëwee nan man bu ma mais nan jàppale mbër yi. waaw man xam naa fu may tojee sama bopp ji na. ca am. Mm. waaw di di sant yàlla bu baax. am di wax ni tey. xaaral euh, euh, euh, dafa mel ni est-ce que nu mu tuddati Karajo maa ngi lay dugalal benn numéro mu woote parce que tamit moom it ci autorité Thiès yi la bokk muy Cheikhou Sanex. te dafa bëgg am nee na lu mu seede ci li nga xamante ne mooy sonn bi moo du Anta di sonn ci combat am mm. waaw Modou Anta day sonn ci combat am biir Thiès nee mm. wax dëgg yàlla donc autorité yëpp dañu war a taxaw jàppale ko Mm. tegam ñoom ñi dëkk Thiès ñoom ñoo ko wax donc wax dëgg yàlla autorité yi nekk Thiès non dañuy jàppale seen doom nag parce que mbër la moo xamante ne sa waay dafa nekk porte drapeau bi ah, ci ténor yi la nekk yi ah, boo mënee bi parce que micro bi nii du baax am na lu ko naqari mi ngi ci am na lu ko naqari ñu bàyyi ma mu tàggatoo xam nga lan moo ma naqari daa am benn bàkk bu ñu doon bàkki ñun waa Thiès billaay mooy amuñu mbër am nga ko de am ngeen ko de. koo a wax amul mbër lan daan wax loolu yéen ñi teg ay. champion am ngeen landing moo père landing moo fi nekkoon père booy ñaa man ñooñu fekkuma seen. woo ko man di ko laa fekk reeram di ko ñaanal yàlla. ba fekkee nga Matar gi ak ñoom Cheikh Niang. waaw fekkee Mondou Mbaye père Ndiaga fekkiwuma. kii Mondou Mbaye Mondou ci la bokk. xamal li bi liggéeyal. waaw mais tey bu ñoo ñëpp jeexee ñu ñu def di profité ci occasion di ñaanal mbëri Thiès yi am combat mm-hmm. te war a bëri journée suba bi ku ci mel ni Safi ak xam nga maa suma booy di mooy entraîner yàlla na leen yàlla defal ndam. Mm, xam nga expliqué mais dëkk boo gis la ci ñuul moo ci dem ñag mm. ñun Thiès dañoo bariwul sax ay mbër. boo bëggee dégg dañu mm. bariwul ay tonnerre ay champion comme li nga mën a ñëwee Guédiawaye tey wala Pikine Konte Konte Konte Konte loolu amul Thiès. xamal mis bi kon ñun leen man mooy xëy suba dem entraîné ji tak suñuy daal jënti combat mais ñëw quoi jees waaye ñoom ñoo des ñoom ñoo des dëgg la ñu dañoo jooye jooye jooye jooye ba di gërëm waa Thiès di gërëm tamit suma supporters yi bu baax li li ngeen wax lépp dégg naa ko li ngeen wax lépp dégg naa ko lépp encaissé naa ko tamit. Mm-hmm. amul benn problème. li ngeen bëgg ci loolu laay def. Mm-hmm. di santaat suma supporters nekk ci partout dans le monde maa leen sant bu baax a baax a mm-hmm. baax. di gërëm ñëpp di leen xamal ne nag jaam beeg pexeem buur beeg dogalam. di yoo jeex jeexul waasul jeex. père a ngi fi yeneen promoteur yaa ngi mu ngi nii pare na pour jox ma avance. kon xamal na supporter na seen xel. lënd ci kàttanu suñu borom. ma takkaat suma daal dugg ci terrain bi. balaa saison bee tëj fer. non da ngay si ñaanal tamit su ma turandoo Mourou Anta. Mm-hmm. Brésil la nekk. xam nga li ma expliqué kii lay def. Mm-hmm. lamb MMA lay def. Mm-hmm. dafa am combat. moom tamit ñu ngi koy ñaanal sunu borom may ko ndam ndax Sénégal lay représenté di félicité tamit rëg-rëg macha wax dëgg yàlla ñu ngi koy félicité victoire bi quoi di gërëm ñëpp nag ayca ama ama tàggatoo waaw man lu may njëkk a def rek mooy di santaat bu baax di wax ne tam aussi bu ñu juumee rek kàddu ñu nga xam ne doomu aadama yi juum li ñu rafet am jàll suñu borom ok merci di jégalu Sénégalais yëpp ah ñu ngi maa ngi jégalu ñëpp ci combat bi ñu jugee ak tamit aussi lépp loo xam ne def nañ ko mu naqari leen rek mais calmez wala ses supporters derrière ok non non amuñ ñoom du ñoom ñu amuñu problème boobu la calmez wala ses supporters derrière ah. waaw non t'inquiète bàyyi ba mu wax ba voilà di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu itam aussi ñuy seetaan. Hmm. xam di leen jégalu tamit aussi bu baax di leen masawu fekkee kàddu yi am na ci débordé ah. beneen bi tam aussi mooy maay nuyu bépp suma supporter nekk. Hmm. yëpp kiy bëggee Eumeu Sène rek Eumeu Sène mu ngi gis naa combat bi <laughs> gis naa combat bi ni waa Pikine génnee. Hmm. waa waa Pikine ñëpp a génn nekk suma ginnaaw. maa ngi nuyu itam aussi waa Mbaaw. mbaaw tamit vraiment gis naa tamit seen taxawaay lébu yi ñoom tamit kenn dem mu def fépp sama supporter nekk rek sama mbokku joolaa yi hmm. séeréer yi tamit aussi même chose gis naa seen taxawaay ci combat di nuyu xarit Raza bu baax a baax baax xam nga waa Ragos wala mais ngay jàpp na ci combat na ci bu baax a ñu ngi tamit suma sono suma jabar sonn ci combat bu baax hmm, hmm, di nuyu président écrit bi di nuyu Khalifa Niang di nuyu Lanjang xam nga di nuyu tamit aussi Pape nga suma frère xam nga sonn na ci bu baax a baax. Rama Maki mi ngi lay nuyu bu baax nee na nuyu ma am na sama bi. <laughs> waaw di di waa Pikine yëpp lay nuyu. Alaaji Mbaye ak ñu jël ñu jël Saniakh dafa mel ni moo nekk ci ligne bi. 88 628 14 13 allo. maa ngi lay ziar bu baax Cheikh. <laughs> maa ngi ziar euh, waa plateau bi mhm. suma suma suma xarit suma confident muy père Gaston. moom dafa am lu yàgg lu ñu boole ba tax na tey jii bu yàlla weddiwul woon suma ay jarbaat ñu ngi daal bu biir këram man artiste laa damay tayaat mais mbër yu bëri bëri bëri bëri du leen lim moom xam na li may wax dama leen wutal làmb ci moom moom ku ma ci woo sollicité ma ni ma dama bëgg a bëri bu ma ko woowee père dina ko dëggal ma ko ciy gërëm di ko ci sant du kenn tànqam luwul kenn te man li may wax xam naa ko mm-hmm. ba ci football bi bi mu ko yoree jour bu ma xam ñëw sollicité ma pour bëgg football bu ma ko waxee père dina ko jàppale euh, Modou Anta maa ngi lay nuyu maa ngi maa ngi bul découragé sport moo mel noonu mënoo saa yoo boo bëre dem ni da daan nit dong nga Euh, sama xarit Eumeu Sène maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay félicité yow ku ne xam na ni jàmbaar nga Lac jàmbaar nga kuy dem wuti nga kuy wuti am nga bëgg hmm. yaa xam stratégie bi ngay demee pour am Père Ma Ngoné maa ngi lay nuyu li ngay def ci Sénégal ñëpp gis nañu ko merci jéen vérification yaa ngi ci yoon am nga yar am nga teggin respecté vous vous êtes des vous êtes des sportifs yéen ay mayante ci seen biir lii mënul ñàkk ci sport ku nekk day wax li mu xalaat après bu ngeen paree vous êtes des mm. maa ngi nuyu waa plateau bi di gërëm waa 2S bii su ngoonee tu fais un travail extraordinaire mm. léegi bu ma ko jëlee ci ñun les artistes thiessois mm-hmm. musul am depuis sunu carrière commencé ba jusqu'à présent un autorité thiessois bu yëkkati cinquante francs ni day dimbali des artistes thiessois ñun ñi ngi bay sunu waar kenn yërëmu ñu dëgg ñu ngi Thiès depuis deux semaines di tourner ay ay ay ay ay série yu war a aw ci télé mhm. dañoo dem koñu koñu koñu Moodu Anta di fa tourné. ah war nañ xool seen bopp. bi ñu demee koñu Moodu Anta di fa tourné di wax ci làmb. Mhm. keroog ay jooy dañu fa jëlee xam nga lu tax. ay jigéen ñoo taxaw parce que Moodu Anta bi mu jotee avance am paraît dafa jot avance bi rek après Covid bi dugg. Mhm. mais mbër la dafa yor fan. Mhm. day entraîné. ñu dundee ko. bi mu ko dundee après. Père Gaston ñafe ñafe ñafe Sénégal yi Sénégalais yi stressé bëgg lu leen divertir ba Père Gaston ñafe ñafe ba nit seen stress dañ ñu yóbbu leen ci stade bi ñu seetaan li nga xam ne mooy suñu sport national. Mhm. mais booy bi dem na paraît-il mhm. booy bi dem na ba nga xam ni ay cere ay jóge ay ay jóge stade di di di di dundee ay cere ay mbiskit yu kenn xamul autorité teesuwaay toog. et ñëw ci stade bi sol ay bassin di jaagar jaagar yi di di jënd ñu benn billet jàppale wuñu booy bi booy bi dafa am sutura rek am yar am am teggi naan jàppale nañ ko kenn jàppale wu kan moo ko jàppale dafa am dafa am respect rek. dafa am respect rek booy bu am yar la am teggin rek mais ñun bi ñu ko nettalee on était sidéré ah. après ñoom ñoo ñëw ci staff bi di jaagat mais mais mais maire maire maire maire Médina bi Bamba Fall man je le respecte ce gars là. Bamba Fall dafa dafa dafa kii. je le respecte mhm. ce gars là. il est venu xoolal jëmmal jëmmal jëmmal ni ni ñëwuma seetaan si damaa ñëw dooleel sama mbër. il faut que Père Gaston li mu wax dëgg la il faut que ñi nga xam ne dañ leen a teg ci bopp nguur gi nañu bàyyi nañu bàyyi di tëj seen téléphone yi ak ak di nëbbatu. ku mu mënul joxe bul nëbbatu mais mënul grand waay jàmbaar nga. bul nëbbatu. amul choix bul def maa ngi leen di gërëm di leen xam émission bi jeex na. du ma leen téye yàgg yàlla yàlla na Sénégal jàmm. mbër defal mbër yi jàmm defal mbër yi jàmm. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. da ngaa baax rek yow Sane da ngaa baax da ngaa baax. toujours. dëgg waay Modou Anta bu ma jooyloo waay. Modou gëral waay. bilaay yow champion bi kër doomu aadama. waaw yow koo wax ci moom su xol bi jegee mu jooy. lu baax ah, rek ngay wax ci nit. waaw lu baax la ah, ah, waaw. moom bay na waaram ba ba ñëpp xamee ko. ba ñu ràññee ba ñu ràññee ko. vraiment moom moo yor drapeau Thiès aussi. oui <laughs> xam nga moom dafa jar dafa jar xam nga jàppale quoi. Mm-hmm. dafa dafa neex dafa dem. waaw coupé na wax na li mu wax dëgg la. Mm-hmm. yàlla xam na ni lii jooy naa ko fu nekk. Mm-hmm. autorités yi nañ delloo seen xel. mënuñu fee dajale xaalis bu yóbbaale ko àllaaxira te li am ci réew mi yëpp population yi leen ko jox. lii leen Macky Sall sédd ci ompal leen ci jox leen nañ ciy dimbali population yi. Mhm. parce que kenn falu leen ñoom. suñu soxlaa ay baat dañuy topp mbokk ñii seen i seen kii du pop du rek ñëpp la bari nañ ñi nga xam ni man suñu euh, am na yoo xam ne mu ko wax. dëgg la dëgg la da ngay wax am na yoo xam ne bëggoo ko wax. mais teewul tey sport bi am na ñu koy dimbali. Mhm. tey am na ñoo xam ne tey ku mel ni Lonase Lat Diop. mi ngi dimbali sport football bi basket bi lépp mi ngi koy dimbali. ci lépp mi ngi ciy dugal ku mel ni Cheikh Ba mi ngi dimbali sport bi. Cheikh Ba bu baax sponsorisé. ku mel ni waa Sénico yi lay ja mi ngi koy def. ay BD par exemple ku mel ni Doudou Ka mi ngi eh, sponsorisé pour ñu jàppale jeunes yi pour ñu bëri loolu leen. ku mel ni ab Sow. saw de l'urbanisme mi mu ngi sponsorisé mi ngi bëgg ñu dimbali leen. mais ak ñeneen ak ñeneen ku mel ni waa waa COSEC ku mel ni Fada Sonacos société yooyu dañoo am budget de communication. nañ ci dimbali football bi nañ ci dimbali. basket diaspora dimbali ñëpp. waaw ah waaw lan. waaw xam nga dafa am ñoo xam ne dafa ma sant leen ah. Mhm. jéggalu ñi nga xamante ne moom mooy xam nga li jotam fii. Mhm. waaw am na loo xamante ne bon. du yow la dëgër melul noonu quoi. Mhm. ci benn instant bi bu ko laajoon fa ñu xaw kii kii tuuti. waaw waaw xaw a neexal bi ñu ngi jégalu ñëpp. ci biir émission bi la bokk waaw ñu ngi baalu àq ñëpp. Mm-hmm. yi. di jégalu tamit ki nga xamante mooy président Doudou Diagne Diécko. Mm-hmm. suñu noonu ñu ngi koy mm-hmm. jégalu di ko baalu àq. di baalu àq ñëpp. la kamu yan baas. non yan baas moom samay. xaaral ma eggali pare. Uh-huh. yan baas sama sama xarit la maa ngi koy nuyu à nit ku baax. Uh-huh. waa nit ku nangoo sonn ci doomu aadama maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla mhm. di nuyu grand tamit ki nga xamante ne mooy grand euh, sama tonton ju baax bëggul na ko tudd turam mais il faut ma tudd bi baax ah muy sama doomu maam Issa Sagna tonton Ousmane maa ngi koy sant di ko gërëm di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne jàppale la dëggee de bàyyi bàyyi daal doomu Cees yi doomu Cees yi. Euh, man dama doomu Cees yi damaa leen woo directement. bisou non non parce que bàyyi li ma. bisou pardon euh, euh, ñi nekk diaspora bi parce que ñu ngi may def si. ñun dañuy préparer combat ci circonstance yu métti yoo xamante ni. ci circonstance yu métti yooyu ñu jàppale seen doomu mbër yow Mascoki doomu Cees. jàppale doomu Cees mais fi mu toll nii kenn xamul lu tax man ak lan moo ma téye. moo a indi la dëgg la billaahi la ma expliquer te version yu ne yu ne yu ne yu ne ngay dégg ndax defet bii man li ma daj ak man li ma préparé suma combat. defet bi ma jéem daan naqaruma kuy mm. bëre yàlla daanu. Mm. mais ñun daa lu xeex di ko défendre ñun ak autorités yi nekk foofu noonu te ñu bokk benn couleur bu nuy defendre mm-hmm. man tukki bi ma njëkk a def dem Italie. man maa débrouiller suma bopp ba dem. du yoon suma père euh, kii yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana. Euh, Mamadou Dieng. waaw moo ma daggal billet. à part loolu ba léegi laa lay wax ni xoolal mosaguma. mais yàlla baax na quoi. bu daanoo bu daanoo mu lu ne lu ne lu ne la gars wax mais est-ce que ñun ñu ngi. waaw man maa ngi ñëw ci yow spécialement yow. ñu ngi ñëw ci affiche bi moo tax Karajo teg ko ne ne. damay bàyyi jéen mu mu tàggatoo tàggatoo. Eumeu Sène. waa Pikine ñoom ñëpp ñu ngi lay nuyu. ah ku ci mel ne ñoom Alaaji Mbay ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm Mbaye Sène ah. ñoom ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi kontaan bu baax maa ngi koy wax léegi ñoom Rama Maki ah waa Pikine yëpp ne nañ kontaan nañ ci yow wax dëgg yàlla. di di di féddali encore seen kóllëre ci yow ak seen. joxe ay loolu message la boo xamante ni il fallait yow kam mooy Yann Baas. non maa maa ngi nuyu commando yi. maa ngi nuyu commando yu baax. xam nga kodo yi maa ngi leen di nuyu. gis naa seen taxawaay ci combat bi te wax dëgg yàlla gis naa suma digganteeg ñoom cofeel bi ci am. maa ngi nuyu takk der yëpp. soldats yëpp maa ngi leen di nuyu. ñu liggéey liggéey bu am solo keroog. merci nuy nuyu Ablaye Timbo tamit aussi. maire maire maire maire Ablaye Timbo tamit jàpp na ci bu baax. Ablaye Timbo ku baax. Isaaxa. maire Pikine Est waaw maire Pikine Est. Mm. baax ñoom tamit. Abdou Karim aussi. Mm-hmm. jàpp na ci combat bi. xam nga maa ngi sant bu baax. du nuy tamit ma docteur ma Mukumba tamit aussi xam nga jàpp na ci combat bi sonn na ci. ndeysaan xarit Trasa moo aw ma fayam. ku leen jàppale rek ngeen am toogul guddi nelu guddi nelu bëccëg mu ngi jàpp ci combat bi moog Pape grand partenaire maa ngi nuyu di nuyu tamit Assane Ndiaye nga xam ni tamit aussi suma suma cousin la maa ngi ko nuyu bu baax a baax a baax waaw mu tamit aussi jàpp na ci combat bu baax voilà di nuyu tamit aussi képp ki nga xam ne jàppale na ama seen rek ama seen waa mbaaw tamit aussi aw ma seen fay jigéen ñëpp a génn xotte ay yére ndróole ko maa ngi nuyu tamit ay dara maa ngi koy bu baax tamit aussi jàpp na ci bu baax a a baax waaw Pikine waa tamit aussi maa ngi nuyu tamit aussi ku lim da ngay juum ñu mu waaw gars yi maa ngi nuyu tamit aussi di nuyu tamit suma xale yi ma jàppale xam nga ku ci mel ni Tyson 2 na ci combat bi ku ci mel ni Ratel son na ci xam nga ku ci mel ni Gibson Assane Orange mhm. ak ñoom ñoom papa ndaw xam nga ñoom mu ndaw ak euh, tamit. ñu euh, tudd Moussa Sarr tam aussi sonn ci combat bu baax quoi. waaw gars yi daal maa ngi leen sant suma fiyaa suma suma gars yi waaw ku lim da ngay jum quoi. ak waa euh, Pikine daal ñëpp maa ngi nuyu waaw man moom waaw. xam nga waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. suma gars yi waaw <laughs> ku lim da ngay jum baax a baax xam naa jigéen tam suma fàttali koo tamit suma tegaat. waaw. écrit waalo spécial waa écrit waalo ñooñu ñooñu dañoo sonn ci combat bi. Mm-hmm. Ah, ah, ak ak ñoom Mbaye si waa Pikine yow tamit am nga fa kër. waaw si te xam nga ñi lay bàkkal riita mbale bu baax bi ñu la duwal leen nii. noo Mbaye si aw ma yam hmm? maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi jamais ñoom ñëpp ñu prochainement nag na nga répété Rita Mbale bi Rita Mbale bi yow lii la la ni Rita Mbale bi joué ko ah normal fecc ko normal yaa ngi déglu non déglu rek boo tëjee kaani feccal li moom feccal Rita Mbale bi man may kilifa nga bëgg ma mais nga fecc fecc mu naat ko euh, Ibou Ndaw nee na naa ko waxaale ak moom <laughs> Pikine dëgg la Del Piero dëgg la ak Ibou Ndaw waaw Pikine rek ay Pikine dem maa ngi ah Pikine nga ah non xamoo ma sax da nga jox waaw ay Pikine dem maa ngi jox la équipe bu mag bi équipe bu mag bi di ñaanal suma rakk suma rakk booy ñaan ndeysaan man kay ñaan yàlla may ko ndam bu daan jël bëri di ñaanal Amath bu bëri fii waa géej waay waa géej waay fu ma wallahi taala waa ko bàyyi jën wax bàyyi jën tàggatoo après mais ma dox maa ngi wax mu naa ma da ngay fecc fecc mbonaat quoi ñun moom toll nañ foo xam ne ndakaaru yëpp moo ne suñu ginnaaw jiital sa Medina mooy ndakaaru yëpp léegi lañuy wax di leen sant di leen gërëm di defalu seen seen taxawaay ñoom ñëpp la dégg gërëm ki nga xam ne gërëm laa nekk Baba Diaw daanal ma ku ñëw jàppale jéen rek si moom nga ko fekk gërëm laa nekk ak soxna di préparé bu dégg bëccëg mosuñu xatal mosuñu def dara <laughs> yàlla la ngay bàyyil di gërëm sama papa sama yaay autorité tamit naa yëpp Cheikh Ba. seet naa yaay di ko nuyu xam nga. Bamba gërëm na leen sax tey autorité tamit naa boo demee derk la tamit autorité yi DG Port ñoom Papa jàpp parce jàppale booy rek lañ mën a lañ mën a lim pour booy yi di jënd bi yeeg yooyu xam nga kër Ndiaye loo tamit tëngeej ñëpp ñu ngi leen di ziar lu bari xam nga di rafetlu seen taxawaay di nuyu sëñ Babacar mën a xulle ay père dañuy ñëw ci Karajo may ñu affiche bi ma ma ñëw jërëjëf jërëjëf jërëjëf yow a baax a baax carrière bi gën a jëm ca kanam nga dem ba dégg waa waa Ndakaaru jàppale parce que Ndakaaru ñëpp jàpp daal yar gaa ngi fi fulla Karajo indi na sama sponsor yooyu Karajo ay ca affiche ñu ma ma ma limal père Karajo ñëwal euh, waaw non non euh, waa fonds social de l'habitat ah. COSAMA euh, SA aussi. waaw ASPT. ASPT waaw maa ngi ñëw. waaw waa CRAC SAPSCO. Mm-hmm. ak euh, euh, Loc Afrique. Ah, euh, waa waa PME e, ay AIDB CCBM mhm. euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax waa meew alib ak ajou ak Jador ah, bois Ndiaye euh, sama jarbaat waaw maa ngi ñëw maa mais nag surtout nag ak waa COUD le directeur Maguette Sène waaw waa COUD jàppale na ci étudiants yi mhm. jënd ci ay billets yu bari ay milliers de billets destination Sénégal jox ko étudiants yi destination mooy ASPT mhm. ASPT LONAS Mao Diouf ASPT moom kenn waxul ñuy wax LONAS moom ci lañ bokk Jador moom suñu yëf la Jador la poste alib moom sama alib la Malick bu Ablaye Dia. waaw Sénico ñooñu it ñu ngi leen di. ñoom xam nga ñooy téye cheval en même ñooy ah, téye ah, cheval. ñoom ñoom sponsor confrontation de. ak waa Wave. waa Wave waa Nourou la Ju. waa port autonome de Dakar wan Xbet. wan Xbet ah IBT transport. IBT Baye Fall Ibou Ndaw ñoom. waa poste ñëpp. waaw ah gis nga gis nga fii day caaxaan. Soko si Baye Alburax. waaw Soko si euh, euh, ah, leader la bu Gaston Production. El Hadj Keita relation ak télé ak date bi nga xamante ne fële waaw sama relation ak télé yi. waaw ayca waaw di nuyu Pape Birahim tamit euh, gis nañ ñoom ñëpp. Euh, seen taxawaay ñoom El Diaz. waaw tuuti rek tuuti El Hadj Keita suba la guddi gi Saara Ba xam nga bëccëg bi tamit derke la la ñoo xewle dimanche bi xam nga ñu ngi dem kër Ndiaye Lo. waaw Pape Djilabo itam maa ngi koy sant gis naa sa taxawaay. jërëjëf ñoom Ablaye Badiane famille bi yëpp daal waaw boo limee daal da ngay jum na nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaam moo daan tam ñu ngi lay encouragé xam nga di la wax ne gars nañ la jàppale xam nga prince waaw prince moom ci la ñu père Gaston bu baax a baax maa ngi leen maa ngi leen di encouragé ñoom promoteur yëpp nañ mm-hmm. góorgóorlu bon yoon yi après yow da nga tëddee njaaxaanaay waaw dama tëddee njaaxaanaay et puis ay peeru euh, dund gu jeexul dara lépp xaj nañ. lépp xaj na si ay xale la nu toll wuñ jàmm tax bay ñàkk. kon mbokk ñu leen di féliciter ñoom it di leen encourager. sa relation télévision yi xam nga 2STV moo amee woon combat mhm. def ci liggéey bu rafet. liggéey bu rafet boo ak bu sérieux amu ci dara lu mën a xari. ndeysaan ñoo jox signal ITV. Mhm. ñoo jox signal. Euh, Sen TV Sen TV ñoo jox signal Bantamba TV. ñoo jox signal Bantamba Bantamba TV. ak Set TV. Set TV voilà ñooñu it ñoom ñëpp. def ci li ñu war a def. Mm-hmm. liggéey bu am solo liggéey bu rafet vraiment gis nga keroog Malick Thiandoum Malick Thiandoum Malick Thiandoum ak bu bu fi keroog dafa ma topp lamb yëpp yenn ko vraiment ñoom ñëpp maa ngi leen di félicité. Mm-hmm. maa ngi leen di félicité ñu continuer rek liggéey bi parce que lamb nag dafa nekk facteur de développement nekk facteur de stabilité. Mm-hmm. nan topp làmb ji nan defar plateau làmb yi nanuy fu nu soxlaa doon ñëw toog ñoom ñuy wax. moo gën ah, ñu bàyyi rek ñëw nga. non moo gën ñu la tontu foofu moo gën ñu bàyyi plateau yi ak euh, dégg nga maam ay yàqkat ay di espèce politiciens yu nekk ci plateau yi di xaste di saaga borom réew di saaga armée di saaga police di saaga justice. fi mu ne nii moom yaa xam ne actualité bi a taal réew. te ñoom ñu bëgg a taal réew mi gën am ci kër goo taal. <laughs> moo tax jeunesse bi. nan toog parce que ñiy bëgg a tàllu réew mi ak leen génne ci mbedd yi doomu kenn du ci génn ñoom ci seen bopp duñu génn bu leen jarax mbedd mi ngeen di marché di def yu kenn xamul ñu leen di ñu leen di rey wala ñu leen di gaañ la ñi ko ñi koy def seen doom duñ ci génn seen ñoom ci seen bopp duñu génn kon na ngeen toog yem ci seen kër jàng seen jàng mbër yi nan liggéey seen liggéey toog di entraîné su bëri jotee ngeen bëri macha bu leen kenn jiñ parce que mbëru nerf bi amul benn nerf bi benn mbër ñi amuñu jot waay ñi dañu am jot donc ñun am ñoom amuñu jot yooyu waaw ah, ñi amuñu jot boobu nee nga maa leen bàyyi woon xam nga yow fii maa la fi indi da bàyyi woon feneen ñëw fi <laughs> ak <laughs> te fii su ma tooñee ma bàyyi leen dem rek. mais bu ñu yàqante nag. kon nag kon nag yëpp jël comme tooñante amu fi. non du gis nañ ma ah, kenn. fi jar. TFM gars yi gis si ñëw ma man mm. ah, te Marème moom. Ah, Marème moom. non yow moom dara bu baax de mu bëgg ma ko. non Marème boole. Mm. ndax moom moom sama waaye. Mm. su doon seen patron sa papa moom léeg-léeg ñu mbëkkante moom heureusement moo tax si ñeentewul dara na ma bàyyi na ma bàyyi sama jabar ak samay doom. mais kon su la neexoon suba nga ñëw Sen TV. non su ko ñëw. yow doo leen liggéey seen combat bi moom du ko mun ñëw Sen TV jëm leen fexe seen combat boobu noonu ngeen def face to face bi. non non bàyyi leen non non non Sen TV nag sama Sen TV nag sama doomu ko moom. waaw mais yooyu. mais est-ce que moom sax moom est-ce que nekkul di waxaale fii kan ah du père bu ko di problème day dem man maay profité tamit aussi di nuyu El Hadj Ndiaye ah. El Hadj Ndiaye ah. ba mu defee soog Fuuta ah. moom moo ma jëloo hôtel ak charge. Ah, man bugaan rek yónnee oto. ñu ngi waxaale ak man ñu bari waxaale ak man. maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal di ñaanal njabootam yëpp. ah ak ah. doom yëpp vraiment bu baax lañu. maa ngi ñaanal bu baax Euh, Bougane Gueye Dany ñu ngi lay gërëm bu baax a baax baax euh, euh, moom ku ko bëgg li nga xamante ne wax dëgg yàlla moom mooy. fi bu yànj bi mu def waaw waaw mënuma kii te nag staff Gaston production. surtout c'est très important. liggéey nañ ci liggéey bu rëy rëy liggéey bu rëy ku mel ni Mbaye Fall. Mbaye Fall le coordonnateur li mu def eh. ci combat bi. Mbaye Fall wane na ni professionnel la. Mhm. wane na xam-xamam ci organisation. ak méthode. Mm. même Bécaye mbay mu nekk ak moom ci Lady Tigre mhm. ak Moustapha Gueye ñooñu ñëpp dañ ci liggéey mhm. may gërëm bu baax euh, Alioune Gueye mhm. Alioune mi amee organisation bi Abdoulaye Ndiaye mi amee combat yu ndaw yi Laat Ndiaye yéen samay doom ngeen yàgg magan c'est un grand connaisseur Abdoulaye Ndiaye ñoom samay doom lanu ñoom euh, ñoom itam euh, magan rey na boppam maa ngi maa ngi nuyu tamit ministre de la justice waaw waaw jàpp na ci combat bi tamit bu baax waaw Malick Malick Sall Malick Sall waaw ah, ah, ah. Malick Sall tamit aussi jàpp na ci combat bi jàppale bëri Sall day jàppale bëri jafe-jafe Sall tamit mu jàppale ko jàpp na ci bëri am na jafe-jafe ministre de la justice Lac de Guiers waaw ministre de la justice Aliou Sall moom bay xamula <laughs> maa ngi nuyu baax waaw ministre de la justice jàpp ko ba baax président Macky Sall tamit yàgg naa jàpp ko ci làmb ndax ay mbëri làmb dana nekk sax jafe-jafe ah. bi jàpp ci te kenn du ko yëg ñu ngi remercier sànq ministre de la justice ak ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Ndiaye ba pare tam aussi recevoir bu recevoir bu ñu recevoir waxtaan na ak ñun man moom maa ngi sant te tam aussi euh, euh, waxtaan na ak ñun te tam aussi waxtaan bu ñu waxtaan tamit vraiment nekk na loo xam ne lu rafet la ñu koy sant bu baax di koy gërëm jàppale ci combat bu baax Macky Sall tam aussi vraiment ñu koy ñaanal tam aussi gërëmal Macky Sall bu ko dox. Ah. gërëmal Macky Sall. ah maa ngi koy nuyu maa ngi koy laaj ci yan baas waxul. Ah, ñoom ñaar ñëpp ñu gërëm ay Macky Sall ñu ngi koy nuyu yan baas. xam nga yan baas ñoom dañ ko am en commun ñoom yan baas. nuyu di ah ah ñun jox kenn promo di ma di nuyu ah, di nuyu yaay jàmme bu baax jërëjëf président Yaya Jammeh. yaa ngi koy dégg ba tey waa déggante nañu. ba tey ñu ngi déggante nañu. vraiment yow actualité nga am de. wuy ma bu baax di koy ñaanal fu mu nekk bu baax a baax. ak njaboot a mu nekk. Eh, eh, eh, Adama Baro maa ngi koy sant di ko gërëm wuy euh, euh, ma <laughs> bisu président Adama Baro président Adama Baro maa ngi koy sant di ko gërëm. waaw waaw di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla jàpp. man daal man daal man daal man sant bu ci kenn man Macky Sall lay sant. waaw Macky Sall ñu koy nuyu dem baax di koy ñaanal. waaw may leen ma ma tëj may leen ma ma tëj. man de Macky Sall moom leen defal année nag. numéro Matar Ba tamit. Matar Ba waaw xaaral ma ñëw waaw Matar Ba non bis Matar Ba nag spécial la. maa ngi ñëw foofu spécial waaw maa ngi ñëw foofu spécial. doguma la yow yow. ñoo bokk Pikine naa yow yow yow yow baale Pikine ñu dem. maa ngi nuyu Matar boobu maa ngi nuyu Matar boobu. yow tamit Ablaye Diop xaas nga ne ma doo wax Ablaye Diop xaas. waaw fii kenn newu la doo wax Ablaye Diop xaas. kenn waxuloo ko waxal. loolu may laaj Ablaye Diop xaas. waaw Matar Ba maa ngi nuyu baax. Matar Ba jàpp nañu ko Chérif waaw may dama ma tëj léegi ayca karajo ñu ñëw léegi euh, ci numéro bi nga xamante ne moom mooy ñam-ñam maa ngi ñëw perte mais ñam-ñam El Hadj Mansour Mbaye 290 00 00 00 290 00 00 moom mooy numéro bi bu ngeen ko bëggee am fële ci point E. ayca Père Mbaye Ngoné. waaw El Hadj Mansour Mbaye moo doon woote léegi. fexe bul dem ah, dëkkale ko ak ak Mansour. bul dem dëkkale eh, ko Père lañ ko doon may ko mu tàggatoo. non non non pardon non non non non buus day jël ëmb lépp yóbbu. comment ayca Père tàggatoo. non bàyyi ko mu eggale eggale la. non Père Gassou non dafa respecté El Hadj Mansour. waaw bàyyi ko mu eggale. El Hadj Mansour Mbaye léegi la woote di leen remercier yéen ñëpp. nee na ngeen dal ngeen dal xam ni Sénégal rek la nekk fii for rek la foo buy joxe xaalis la nag kon il faut ngeen respecté pom yi parce que foo jëlee fee tewu doo am xaalis jelage Mansour Mbaye mii woote combat Balla Gaye 2 ak ak Bombardier moom mooy drapeau drapeau Mansour la sama goro la di nuyu Cheikh Mbaye tamit yow sa goro la bu baax Cheikh Mbaye sama goro la père aja tàggatoo woon am waaw jërëjëf di nuyu waa Seck Seck la yàlla na fi yàgg tëwér cum. waaw ñu ngi ah. baax dégg waaw. waa bii su ma di nuyu ñu dafa demee. pire ñoo bokk waaw du ngeen du ngeen du ngeen respecté mbay bi ñu bokk Pikine du ngeen respecté Père Mbaye. Père la doxalal doxalal. wax dëgg yàlla même Père tamit Pikine la dëkk parce que Pikine seize communes la. Thiaw rek gi yow tàggatoo ton sama nijaay maa ngi lay sant. ñëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp maa ngi leen di nuyu ñëpp borom Thiès di ñaanal euh, ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany. waaw surtout sa directeur Bougane Gueye Dany. waaw je suis Bougane. waaw je ne peux pas oublier Bougane. non je suis Bougane. oui je ne di gërëm bu baax aussi ki nga xam ne mooy Gaston Production. Mhm. dama nekk micro central ay rajo bu Roubé Pène. ah, ah eh, eh, mais Galadio la yëngu. non tàggatoo ak père tàggatoo. maa ngi leen nuyu di nuyu bu baax Tamsir Soxna. bu baax ba Tamsir kenn du Tamsir Soxna ba Tamsir Soxna maa ngi koy baax. moo duggee héritage. moo duggee héritage couture nga xam ne Gaston mi ñu génnee ñëpp a ngi solo. ah sama sànq bi moo duggee héritage couture. te du ñu déplacé fa ñu jóg. entre à travers site internet am. Albamba Sow jox na leen ku ay blouson ak ay dàll ñoom. maa ngi gërëm bu baax a baax a baax di nuyu sama sang bu tedd ba. moo daan bay bayal ma ne Koddu Ngoy Koddu Ngoy Fatma Binta Fatma Binta Yacine Dumbe muy maam Abdoulaye Fall le trésorier de l'État waaw waaw bul fàtte ne sama yaaya bokk benn baay. dëgg la ah Abdoulaye Fall ku baax la. mënuma koo ci àdduna. doo ko fàtte jërëjëf dégg nga du moom daal du ma ko fàtte. ma ngi nuyu waa Boqal ak waa Louga ak. di nuyu ak samay jabar ak samay doom ak samay jarbaat. dëgg la ayca Modou Mbaye Serigne Badul Seye. Serigne Badul Seye borom tawféex. saa di la remercier bu baax a baax ci saa su nekk générosité bi ngay am di ñu indi ci plateau yu mel nii. Mm-hmm. nga xamante bu la neexoon nga naj ko yow rek mais macha allah. nit ku baax nga waaw mais maa ngi lay bëggee di la kontaane bu baax a baax di remercier champion yi fi teew di lañ wax ne lii mooy sport mm-hmm. lii rek lañ ci bëggoon ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan ñu génnewaat li nga xamante ne moom moo amoon ñu waxtaanee ko mu jeex di ñaanal suñu père Mbaye Ngoné père yàlla yàlla defal ko jàmm ci barke Seydina Mohamed ba li mu bëgg ci làmb yàlla def ko nag maa woo may ñëw rek ma woo ko bii baax na de ko grand Baara mu ne ma ñëwal 402 17 17 kenn du Baara maa koy bëggee Moustapha jox naa la tàngoor ah min nañ ko min tàggool tàggool alors man maa ngi. waaw waaw. mbay si la textile. mbay si la textile mbay si la textile. dana gën a ma pees fan. waaw waaw waaw <laughs> ayca. Euh, bi euh, Karajo mayel bi taf mu ñëw. Karajo bi taf sama rax yi taf mu ñëw. ñëwal alors complexe na bu mais Karajo lu muy yàqal borom xëy na 77 633 52 57 78 583 69 64 ak Teranga euh, Teranga Firdawsi ñoom ñoo ma jox daal. mooy borom ci cerax yi. waaw yow kaay nii kaay nii tàggatoo bu dëgër yow. waaw dëgër na bii dama dama bëgg mu mu gaaw bi. teraanga cerax yi bëggee. ah teraanga Firdawsi ñoom yu euh, merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup dañuy gërëm euh, téléspectateurs yi nga xamante ne ñoom ñuy seetaat yëpp ah euh, vendredi bu jot à chaque fois di ko gërëm ki nga xamante ne moom mooy borom bijouterie Sen Gold ah ñu koy wax Bilal Niang à chaque fois du ma tàyyi chaque fois di la remercier bijoux yu nice yi à chaque fois bu ngeen ko bëggee da ngeen di dem fële ca deux liberté 6 am na Pikine ah euh, euh, euh, ñoom ñëpp ñu ngi fa bijoux yu nice ak yu mucc ayib ma xaaral ma tàggatoo ngeen daal di koy am ah yu nice a nice a nice Bilal ñu ngi koy gërëm bu baax doomu ndeyu si Silla waaye dañuy gërëm Papa Ndéri à chaque fois moom mi ngi ak émission confrontation dañuy gërëm Pape Mbaye Gueye ah, sama tons ñu koy gërëm bu baax di gërëm aussi euh, euh, Bachir ah euh, mi ngi koy wax moom mi ngi ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikhou Saneex mi ngi gërëm ñoom ñëpp wax dëgg yàlla Adama borom Vox Pop ñu ngi koy gërëm di gërëm Fifita borom Diaspora waa Eau ñu ngi leen di gërëm à chaque fois bi tey soxna Jaara mi nga xamante ne moom moo ñu defal buffet bii ñam-ñam gis na jox naa leen numéro bi sànq 77 290 0000 ñuy gërëm aussi waa Machallah Cargo ak waa Sen Cargo bàyyi borom seen cargo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm moo duggee héritage à chaque fois moom mooy génn fii Ibro ci ndel ak lépp lu nga xamante ne euh, di gërëm équipe technique bi nga xamante ne ñu ngi àndandoo ak ñoom à chaque fois ci émission confrontation si Babacar Karajo Papi ah euh, euh, Laay Bamba ci son bi waa régie Abel ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di jox di gërëm mbër yi nga xamante ne dajale leen lañ fii ci plateau bi ah, di gërëm waa pikin di gërëm <laughs> Pikine na xam nga lak fa laay sëy comprendre rek waaw ndaw saan ne dam faxa borom du ko man la dëkk mais géejawaay laa dëkk bàyyi loolu mu sedd géejawaay laa dëkk dëkk rek rafetal ni rek di wax yéene ko moom